أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala noo ngi delluwaat ci sunu tomb waxtaan diggante ñaari way dencante yi te mooy góor ak jigéen bokk na ci tomb bu ñuy waxtaane tey mooy wasiyatullahi aza wa jal bin nisa ndénkaane bu yàlla tabaraka wa taala dénk ji góor ñi jigéen ñi ndeke jigéen ñi ay ndénkaane lañ ku ñu dénk nag war ngaa sàmm lan la dénk war ngaa xool ki la dénk li mu la dénk nga garde ko dencal ko ko fonkal ko ko ndax ci loolu ngay xam ci loolu la ñuy xam ne yow respecté nga ki la dénk wala respecté woo ko borom bi subhanahu wa taala wax na ci suura annisa saar bi nga xam ne mooy saaru jigéen ñi aya 19 borom bi nee na wa aachiruhunna bilmaaruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yajcalu allahu fihi xayran kathira borom bi nee na ngàllawaay yéen góor ñi maa ngi leen di dénk ngeen dund ak jigéen ñi dund bu rafet su ngeen sikkee ci ñoom ab jikko amaana ngeen bañ dara waaye yàlla def ci yiw fa in karihtumuhunna bu ngeen amee lu ngeen bañ ci ñoom fa asa an takrahu shay amaana ngeen bañ dara wa yajcalu llahu fihi xayran kasiran lool ngeen bañ yàlla defal leen ci lu baax yàlla defal leen ci yiw wu bari kon li ñuy dégg ci aaya bi mooy ginnaaw ba yàlla jëlee jigéen ñi dénk nu nun góor ñi yàlla xamal nu ne yenn saa yi ñu gis ci jigéen lu nu neexul waaye yàlla subhanahu wa taala def na ci yeneen wàll yi yeneen anam yi yiw yàlla def na ci jikkoom yeneen jikko yi yiw kon saa yu ne jigéen ndénkaane la bu yàlla dénk góor noonu ngay fekkee ne même ba mu nekkee yaay ñi koy dénk góor ñi kazalika naka noonu ba mu nekkee soxna tamit ñu dénkaane ko yàlla ne wa ashiruhunna bil maaruf lan mooy maaruf mooy alaama amara allahu bi ni ko yàlla santaane ci dund ak moom dund bu rafet nee na loolu wal muraadu bi haada al amr lan lañu namm ci mbir moomu mooy dundal ak moom ak njekk yor ko yor bu rafet mooy fa imsaakum bi maaruf tée ko tée bu rafet teel sa soxna yow góor teel sa jabar téye bu rafet àndal ak moom ànd bu rafet yor ko yor bu rafet nee na bokk na ci loolu nga jox ko àqam ba mu mat moom ndaw si àq yooyu bi ci njëkk mooy canam na mat jigéen boo koy denc na nga ko jox can kooku la ñuy wax almahr wala ñu tuddee ko sadaqa wala ñu tuddee ko nixla jigéen bépp góor bu am yéene denc jigéen na yëg ne yoreel na jigéen jooju can buy bàyyeekoo ci góor jëm ci jigéen can nag ci lislaam amul nu mu toll bañ koy yéem ci bariwaay waaye amul nun koy nu muy néewe tamit bañ koy xeeb ci lislaam boo mayee jigéen milliard milliard baax na boo ko mayee million baax na boo ko joxee jaaro weñ gu ñuulit baax na l'essentiel que na am lu jóge ci ku góor ki jëm ci ku jigéen ki loo xamante ne ndaw si d'accord na ci loolu mooy can jigéen ñi nag seen can ñetti àtte lañ ci am am na ndaw soo xam ne canam moom moom moom lépp am ndaw soo xam ne canam dañ koy xaaj ci digg bi mu jël genn wàll ñu delloo ko góor ki genn wàll am ndaw soo xam ne canam daf koy delloo ndaw si moom can bi lépp te mooy ku njëkk ki mooy ki góor waxal dama lay denc dama lay takk mu nangu ñaata laa lay may cent mille francs mu yónni ay mbokkam ñu jël can bi jox ay kilifaam cent mille yi mat takk bi am ndaw si sëyi nekk ak waaja kooku can bi moom moo ko moom lu ko ci neex mu def ndaw si nga xam ne can bi dañ koy xaaj ci digg bi delloo ko genn wàll mu jël genn wàll mooy ndaw si nga xam ne da ngeen a waxtaan ñaata nga may may cent mille nga yëkkati cent mille yi yónnee balaa muy delsi nga yónnee ne fase nga ko balaa ndaw si di sëy si nga yónnee ne fase nga ko bis bi nit ñi takkee nit ñi dañoo jóge jàkka ja dellu ca kër ya rek nga yónnee ne fase nga ko wala yónnee nga fa sa alal sëy seegul bokk gu leen néeg bokk gu leen lal nga yónnee ne fase nga ko kooku can bi nga xam ne moom nga ko joxoon cent mille francs yi dañ koy dagg ci digg bi jox ko cinquante mille yow nga ñu delloo la sa cinquante mille ndaw si nga xam ne canam mooy ñetteelu jigéen bi ci canam moom da koy delloo mooy ndaw si nga xam ne danga ko takk jox ko cent mille francs mu gis ne yow neexoo ko bëggatu la sëy bi bëggu ko mu ñaan la baat nga lànk mu delloo la sa can mooy simmeeku kon can a ngi noonu àq la bu góor yoreel jigéen bépp góor boo xam ne dangaa yéene takk jigéen te fas yéene woo ko jox canam yow yonent bi nee na yow njaalookat nga bu leen fàtte yonent yàlla Moussa moom keroog ba muy joxe can pour takk dañ ko sànn sàmmloo juróom-ñetti at soayi bu ne ko bu motee fukk sa coobare bopp la waaye juróom-ñetti yi moom moom lañ sartante léegi nag mbokk yi calculer leen bu doon salaire la ngay sàmm juróom-ñetti at weer wu nekk cent mille loolu ñaata la xaalis bi ngay sàmm di liggéey weer wu nekk ñu lay fay cent mille francs nga sàmm huit ans ñaata la calculer leen ma ko kon nga gis ne Moussa alal ju bari la joxe pour ñu may ko soxna waaye bu leen fàtte yonent bi nee na iltamis walaw xaataman min xadid joxeel même bu dee weñ gu ñuul waaye can yooyu yëpp ci bari ak wàññeeku gi ban can moo gën mooy can gu digg doomu yonent bi nee na jigéen ñi nga xam ne seen sëy dafa am barke mooy jigéen ñi seen can néew ndekay can yi buñ leen doon yombal dina jur ñaari mbir dana tax jigéen ñi ñu denc leen takk leen waaye dina tax seeni sëy am barke ndax yonent bi nee na jigéen gi gën a néew can moo ëpp barke ak gi bu bëri can te nit ñi barke lañ war a seet mais bu ñuy xool dëkk bi tey di xool dund gi danañ fekk nit ñi li leen yitteel mooy alalu àdduna may nañ ma cinq cent mille may nañ ma un million indil nañ ma ordinateur indil nañ ma iPad indil nañ ma télé indil nañ ma indil nañ ma indil nañ ma yooyu rek ngay dégg wolof yi danañ jàngale may gu dëkk moo gën may gu jëkk maanaam may guy dëkk bés bu nekk may gi di dëkk moo gën may gu jëkk may goo xam ne benn yoon dong lañ la ko may mu jeex kon may gu dëkk moo gën may gu jëkk ñu bari nag li ñuy tiitaru mooy indil nañ ma may gu jëkk kon sunu diine lim ñu jàngal mooy góor daf yoreel na jigéen àq ci sëy àq yooyu li ci njëkk mooy can can boobu nag wax nañ léegi ne ci góor lay bàyyeekoo jëm ci jigéen nu mu toll ñoom ñaar buñ ci d'accord baax na bu leen fàtte yonent alayhi salaatu wassalaam maye na jigéen ci ay saaru alquran wala ay aaya alquran yonent bi toog na rek benn jigéen dagge ca làng gi ñëw ne ko yonent bi may naa la sama bopp ndax loolu daganoon na ci moom yonent bi sëgg bañ ko tont ndax borom kersa la gaañaa ko wër yonent bi ne tekk ndaw si baamtuwaat baati yonent bi ne tekk benn waaye ne yonent boo ko kiiwul teg ma koo kii benn waaye ne yonent boo ko kiiwul teg ma koo kii yonent bi ne ko loo yor na yoruma dara loo bàyyi kër ga bàyyiwuma kër ga dara loo denc dencuma dara ah loolu dana doy waar di ndax mokkal nga Bakara déedéet mokkal nga Ala Imran déedéet waaw loo mokkal ci alquran nag mu ne ko inna aataynaaka al kawsar mu ne ko jàng ko jàngal ko ndaw si muy canam jàngal ko ndaw si muy canam gis ngeen ndaw soosu canam alquran la am na beneen jigéen joo xam ne canam mooy tuubug jëkkëram benn waaye ñëw na nekk ab yéeféer bëgg ko moom ndaw si mu ne ko jullit ak yéeféer du nu sëy waa ji ne ko bëgg naa ko de mu ne ko ndaw si ne ko boo tuubee rek takk ma waa ji daal di tuub ñu may ko ndaw si mu ne ko loolu mooy can bi tuub rek mooy can bi doo joxe dara boo tuubee rek takk ma kon gis nga ndeke léeg-léeg doomu aadama dina yaakaar ne can xaalis dong la war a nekk fekk am na leneen lu muy nekk lu dul xaalis comme niñ ko jàngee ci taarix wala siira kon mbokk yi dañu bàyyi xel ndénkaane yàlla bi tabaraka wa taala bi mu dénk góor ñi jigéen ñi mooy ànd ak ñoom nekk ak ñoom dundandoo ak ñoom dund bu rafet borom bi ne la boo gisee ci ñoom jikko joo nawul benn am na téeméeri jikko yu baax yu nekk ci côté bi amaana ngeen bañ dara loolu ngeen bañ yàlla def ci yiw dund bu rafet nag buñ koy wax mooy téye téye bu rafet suñ ne lu rafet ñëpp xam nañ ko mooy lu bët di gis di bég nopp di ko dégg di bég su dee wax muy neex su dee dox muy rafet su dee jëf mu rafet loolu mooy na ngeen ko téye téye bu rafet wala fi dañuy léeb di wax ne kanam du kaso waaye koo ci tëj mu xam ko kanam ñu ne kanam du kaso waaye koo ko tëjal mu xam ko kon diggante ñaar ñuy sëy ci téye téye bu rafet kon kanam yi dañoo war a leer kanam lu fa nekk mooy bët gémmiñ nopp yooyu yëpp bu nu àndee bët day xool xon xool bu rafet nopp du dégg dégg gu neex gémmiñ lu génne du rafet mooy la yonent bi waxoon keroog ba doomam faatoo xol bi da koy naqarlu bët bi di tuur rongoñ waaye xol bi du génne lu dul lu yàlla gërëm te ci période naqar la doomam génn àdduna bu tudd Ibrahim yonent bi ay bëtam tuur rongoñ saxaaba yi ne ko ah yonent li ñu tere woon da ngay def yaa ngi jooy de mu ne déedéet te raw ma leen jooy de bu leen jaawale ñun li ñu tere mooy saalit yuuxu xotti sa yére gajj sa bopp di salleeru di yuuxu di cappatu di jàmbatu waaye ñun jullit xol bi da koy na naqarlu bët yi day tuur rongoñ waaye làmmiñ bi du génne lu dul lu yàlla gërëm kon tey sunu tomb waxtaan mooy loolu ñu naan almahr wala ñu tuddee ko assodaqa wala ñu tuddee ko nixla te mooy can wax nañ nag can ni muy toll ci kan lay jóge ci kañ lay dem wax nañ jigéen ay àqam ci can wax nañ ñaata jigéen lañ kenn ku nekk sa can loo ci moom incha allah ñu yemale ko ci tomb bi di can toppe ko noonu benn benn ubbi débat bi laaj mbokk yi su fekkee loolu tomb boobu am na lu lënt ci ñoom incha allah bi iznillahi tabaraka wa taala ñu jëm ko leeral sunu kémtalaayil kàttan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu